Euh, mbégte dalal la fii ci stand Sénégo fii ci biir foire bi ñu bàyyi la nga nuyoo ak internet yi nga xam ne ñu ngi lay seetaan euh, merci Ngoné ñu nit ñi nga am mbégte vraiment toxi si plateau Sénégo n'est-ce pas donc euh, di di leen di leen gërëm mm-hmm. mais également di nuyu les téléspectateurs hein, à mm-hmm. travers le monde n'est-ce pas nos, nos, amis, nos parents, mais également nos fans, n'est-ce pas, qui aiment bien encore euh, suivre ce que nous faisons à la télé. Uh-huh. alors tonton Sène laa la xamee mais il faut nga wax nit ñi exactement naka nga tudd. <laughs> bon man Moudi Fall laa tudd. Uh-huh. voilà de mon nom propre. D'accord. Mais alias Tonton Sen. Alias Tonton Sen. Il y a d'autres aussi qui disent Monsieur Ndiaye. Uh -huh. D'autres Tonton Ousmane, <laughs> de belle-mère, etc. etc. D'accord. Donc euh, nekk euh, si belle-mère nekk si idole ak yeneen série mm. yeneen série yi nga xam ne yëpp moo nekk otop top. Uh-huh. Uh-huh. Sénégal. lan mooy secret bi ba nga mun a nekk ci série yooyu yëpp te amul benn retard boo xam ne yaa ngi koy am euh, ci yeneen yi. merci merci beaucoup macha allah macha allah bon mais en fait xam nga loolu jàng sa métier la rek. Mm-hmm. et puis tam euh, di ci dem avec méthodologie voilà méthodologie bi mooy xam nga booy tourner film tu ne tournes pas en général vingt vingt quatre heures sur vingt quatre ni euh, tous les jours donc da ngay planifier n'est-ce pas sa emploi du temps bon euh, déggoo ci aussi ak ñi lay employé mais aussi et surtout bon il faut aussi avoir beaucoup de de savoir-faire comme on dit c'est-à-dire sur le plan technique ah artistiquement parlant mais aussi sur le plan euh, intellectuel mais aussi et surtout physiquement parce que xam nga personnage y a y a tout ça autour hein ah voilà am na am na wàll boo xam ne ci xel bi la lii ci physique bi la lii ci défine bi la voilà donc loolu yëpp bu fekkente lu ci nekk jox nga ko a xam mais doo mën a problème pour jouer dans plusieurs productions à la fois ou changer plusieurs personnes euh, personnages du moins donc loolu li ko waral maanaam jàng li ngay def la rek moo koy maye quoi voilà li ngay def nga jàng ko xam ko yàlla am lum li ci mën loo donc bu boobaa di nga xam na nga ciy taxawee tu vois def ko ci anam yi nga xam ne daal moom moo jaar yoon. Uh-huh. voilà donc c'est ça le secret tamit yomb na parce que gis nañu ne même bu fekkee ne. Hmm. da nga bokk ci série doo tourné 24 heures sur 24 tamit. Hmm. li ngay fonctionnel dafay bari trop est-ce que dina yomb pour liggéey bi ak yooyu. non non non benn liggéey yombul et puis particulièrement tournage ah. xam nga tournage nit ñi ñu bari dañu lay gis. ngay wax muy jàll avec fluidité il pense que loolu da ngay ñëw toog rek def ko ah non non non mais c'est tout un travail de préparation euh, n'est-ce pas au niveau donc de de de l'interprétation au niveau des textes parce que théâtre professionnel bon mais également un téléfilm ou un film de cinéma professionnel les textes sont écrits il faut les apprendre il faut les mémoriser mais aussi il faut pas seulement les réciter voilà faut les rendre avec le naturel qu'il y a avec la psychologie du personnage et ensuite se donner du temps n'est-ce pas de bien faire le travail liggéey boobu tam yombul parce que tournage nit mën na ci fanaan mën nga ñëw tournage ah huit heures du soir tu rentres à cinq heures du matin mën nga ñëw le matin et tu rentres pratiquement en pleine nuit mhm. bon loolu yëpp déggoo la ak kii ngay liggéeyal mhm. mais aussi nga mën ko attan ko te loolu aussi bon loolu le réalisateur yi soxla producteur yi soxla ko mhm. il veut une personne en en en bon état physique en bon état mental et n'est-ce pas qui est aussi des, des, des atouts techniques n'est-ce pas pour pouvoir euh, faire les tournages correctement ne pas perdre du temps comme on dit voilà parce qu'en général xam nga boo nekkee acteur nga ñëw li ngay def mënoo ko maîtriser wuloo ko ba les gens non seulement perdent beaucoup de temps mais ils risquent même de changer de personnage. Voilà, à la limite en dernier recours euh, mooy euh, personnage bi surtout dafay ah. joué ci li nga xam ne mooy film wala téléfilm. te gis nañu téléfilm yi mm-hmm. dafa bari Sénégal. waaw te euh, critères yan critères la ñu war a jël parce que da gis koo mm-hmm. xam ne amul formation. Mm-hmm. jàngul formation. dafay xees wala rafet wala mu nekk jigéen bu rafet rek ñu jël la intégré ci film. ah non non yooyu yooyu du critères yoo xam ne sont des critères fondamentaux hein. d'accord nit mën nga ko jël parce que dafa taaru nit mën nga ko jël parce que profil am dafa rafet mais nit li war a tax nga jël ko mooy personnage am dafa war a méngoo ak euh, euh, du moins nitam euh, jëmmam dafa war a méngoo ak personnage bi li mu mën aussi wa te ñu soxla mu génnee ko dafa war aussi méngoo ak personnage bi je pense que si si base yooyu la ñu war a defee casting parce que xam nga àdduna lépp rafetul comme lépp ñaawul donc Euh, en fait profil bu ne dañ koy soxla ci film mais profil boobu il faut nga am ko ci nit ki mais boo ko amee aussi ça ne doit pas se limiter l'aspect physique war na nekk aussi au niveau bon euh, euh du, du du jeu de comme au niveau de la diction mais aussi nekk au niveau de de l'intériorisation nit ki li muy jouer bu koy jouer ki koy seetaan yëg ko parce que loolu la ñuy wax ne lu jóge ci xol moom mooy dem si xol yow bu fekkente da ngay jouer benn personnage te dunduloo ko intérioriser woo ko ba nit ki koy seetaan ne serait-ce que non seulement euh, pas seulement à l'image mais par magnétisme mu sentir li ngay def parce que nit si tu éprouves réellement gis nga ki lay seetaan waxuma gis mais da koy yëg. moo tax voilà il reçoit ba jooy si. ba voilà merci parce que ces gens là ils vrai. justement lool nag la ñuy soxla si acteur. te loolu nag bon mënoo ko am ci ñëpp. effectivement li ci ëpp. te gën a yomb mooy nga am ko ci professionnel. mais même boo ko amul ci professionnel xam nga am na nit ñoo xam ne naturellement ils ont des dispositions quand pour bien interpréter et puis ne pas être euh, en tout cas influencé par la présence de la caméra. disposition yooyu nit mën na ko am naturellement. mais li si gën a wér gën ci wóor mooy ku ko jàng. nga am expérience bi. voilà à moins que que tu sois coaché. que tu sois encadré parce que man il m'arrive en ce moment très souvent euh, d'être sollicité comme coach. waaw booy yi ma leen di aider vraiment à à à à restituer personnage dans les règles de l'art quoi. voilà yooyu tamit solution la nga continuer kii. ba am li nga bëgg ci moom. d'accord ce point de vue par rapport ak euh, série yi nga xam ne euh, bari na Sénégal fu mu nekk ku mm. jóg rek. waaw il faut nga def benn série. waaw télé bu nekk am na série bu fay daw. ban analyse nga def par rapport ak euh, ñu jékki jékki rek série yi bari ci Sénégal. waaw xam nga série yi bu jékki-jékkee am une floraison. bon d' abord dañ ciy sant yàlla à premier niveau. dañ naan bari bi am na solo parce que dina tax ñu bëri ñoo xam ne mooy seen liggéey ñu am liggéey. mais bari bi aussi bu fekkente dafa bëri te bari de nekk quantité au lieu de qualité vraiment ça laisse à désirer parce que normalement si tu fais euh, euh, euh, euh un, un, un, un n'est-ce pas si tu fais un film de façon général film boobu dafa am dafa war a am les paramètres techniques et artistiques. yi nga xam ne loolu la métier bi laaj. loolu mooy tax nga mën ko yóbbu bitim réew ñu mën ko seetaan ci adduna bi yëpp. Mm-hmm. et tu sais que au Sénégal euh, ce n'est pas le cas de la majeure partie des production audiovisuelles. Mm-hmm. et c'est très dommage. Mm-hmm. voilà ñun yàlla dimbale nañu am na produit yu bari yu ñuy bokk mais dafay war àddina bi. ça fait le tour des festivals à travers le monde ça remporte de distinctions. n'est-ce pas ba ci Idole fii au niveau du Sénégal Idole a remporté quand même euh, plusieurs fois la de meilleure série sénégalaise. donc on s'en félicite. am na sax benn kii international boo xam ne aussi bi ñu defee sondage yi Idole dafa ñëw raw raw yëpp. lu kooku c'est au niveau international au niveau africain quoi je veux dire. Mhm. Idole ñëw raw carrément d'après la sondages mais lan mooy secret Idole bu mu mën a tenir gis nañ saison yëpp bari na ba beneen saison sax ñëwaat na ngeen koy euh, wéyal lan mooy seen secret exactement. non mais juste un travail bien fait parce que dañ ne euh, euh ce, ce qui est euh, bien maîtrisé hein. Mhm. donc euh, se, se, se, se, pratique euh, facilement et s'exerce aisément. Il n'y a pas d'autre secret. waaw li ngay def da nga koy maanaam lekk da koy togg ba mu ñor ba nooy ba mel ni mu war a mel. boo ko yàkkee koo ko jox da koy lekk kontaan. c'est ça en fait le secret. mais tamit ci yenn xale jigéen dañu gaaw a yëg succès. Mm-hmm. ci mel ni yow da ngay taxaw nuyoo parce que. Mm-hmm. te pourtant nekk yaa ngi ci mais da gis koo xam day feeñ benn yoon télé ñaari mm-hmm. yoon télé. dina changer numéro téléphone wala ñi mu doon ànd. a leen di bàyyi yëg succès daal ba foog ni star la. waaw waaw c'est vrai que loolu remarqué nañ ko mais on on on dit Euh, c'est vraiment dommage euh, parce que nit tamit gis nga lépp looy def rek boole ci gëm yàlla boole ci xool sa bopp si contexte su àddina boole si xool sa bopp ne gis nga nit lépp looy jaay rek am na ku ko mu gën a mën waaw te it nit moom euh, da ngay jàppee sa bopp ne toq ndox nga si biir géej bu ko defee nga modeste ah ñun de wax dëgg yàlla fu ñu toll dañuy jàngat dañuy jàngate xam ne kenn matalul dara yàlla rek moo mat Euh, te itam euh, lu ñu ciy gën a sori sax ñun suñu borom la ñuy gis ci liggéey bi. waaw dañ ci gis ne nit maanaam da nga war a woyof mel ni mbaxane bu ko defee ku ne mën laa sol. Mhm. c'est aussi simple que sax xale yi nag bon je me dis que quelque part c'est peut-être un manque d'expérience un manque de maturité euh, une fougue de jeunesse qui souvent n'est-ce pas amène à faire des erreurs mais j'espère que avec le temps. nest donc euh, voilà dina changer dinañu gën a am mat quoi mais dañuy faral di yi bu comme bu jigéen. Hmm. ñu ngi yàgg ci sëy lan moo est-ce que d'accord nga ci ci loolu. Euh, waaw parce que métier bu difficile la. Hmm. xam nga métier artist homme public la. dafa mel ni nga nekk politicien wala nga nekk musicien bu siiw ñu soxla la euh, ku ne di la yóotu dégg maam et puis tam doo bari jot. xam nga loolu ku mel noonu sëy moom nag du yomb. ki nga xam ne yow saa yu ko soxlaa sa wet doo ko gis. Hmm. wala lu nga koy sa àddina. wala nga gis ne nit ñi dañuy mel ni ñoo la ko gën a bëgg ba di ko xëccoo loolu euh, borom xool bu bu mat moo ko mën def lay ji réew mën loolu donc loolu moo tax seen une situation difficile il leur faut juste des personnes compréhensives voilà des partenaires n'est-ce pas sages nest pas yu dal yu yu xam ñi ñu nekkal daal ba pare jox leen cër bi parce que loolu du dara nit lu ñu la bëgg bëgg bëgg benn nit ngay doon waaw te it dafa mel nii rek tey jii boo amoon àddina ak li ci biiram am téeméer wala million ngi kër benn rek nga ci fanaan boo amoon ay lal yu dul benn nga ci fanaan boo amoon téeméeri jabar ci benn rek ngay mën a aye ci benn guddi donc àddina moo demee noonu maanaam lépp da nga koy jox cëram rek teg ko si yoon donc boo amee jëkkëru artist wala jabaru artist da nga naan kii benn parti ci moom laa moom li ci des àdduna moo ko moom boo ko gisee noonu rek en général doon am problème. d'accord ñu ñëw ci série Mœurs gis nañ ko. mi ngi mi waaw ñu gis euh, film wala série yu bari. Mm. actrice bi wala acteur bi. Mm. dafay acteur bi du moins day nekk góor. ñu mm. choisir fii actrice principale bi Anna nekk jigéen lan ngeen bëgg a démontrer foofu. non dañu bëgg a wan ne rek euh, bon euh, góor baax na jigéen baax na en réalité parce que il n'est pas normal que chaque fois qu'on ait des acteurs principaux euh, hommes hein, quoi mais jigéen ñi tam il faut ñu wane seen valeur wane ne góor fu mu taxaw rek jigéen dafa war a taxaw ci wetam. àddina mooy doxee noonu c'est pourquoi nous on privilégie beaucoup les les les les personnages féminins n'est-ce pas les personnages euh, fortes quoi ay jigéen yoo xam ne dañuy am taxawaay boo xam ne yeneen jigéen ñi dañ ci gis seen bopp. ñu am jigéen bu jëmmal di nga am jigéen ñi jigéen bu bu bu bu bu jigéen ñi naw. mais boo xam ne dañuy nekk maanaam une force de la nature loolu dafa am solo parce que ay message la en fait c'est des message te nag dañu tollu jamono boo xam ne il faut ñu valoriser jigéen xam nga Sénégal booy xool euh, dans le temps taux d'alphabétisation bi dafa faibloon trop ci jigéen ñi mm-hmm. mais actuellement dugal ci école yi tu verras qu'il y a beaucoup loolu je pense que c'est une avancée mm-hmm. c'est une et c'est une bonne chose les femmes parce que yàlla ci boppam mm-hmm. dafa valoriser femmes waaw mais mais ñi ngi koy xaw a ŋaañ tamit parce que gis nañu ci mars day am ay xale jigéen yu téye cigarette. yenn yére yu indécent yi yoo xam ne ñu ngi koy sol ak uh-huh. yooyu. Uh-huh. pourquoi ñu ci wane loolu te dañu ne pour hmm. valoriser jigéen moo tax. Uh-huh. Ah. non mais gis nga ñooñu ñu ngi ci biir mais ñeneen ñu am valeur ñu ngi ci biir di leen xeex maanaam xam nga cinéma moo demee noonu euh, àdduna dafa am mbon am baax. bon yow mun loo ñëw ngay wane lu baax rek <laughs> boo loolu dootul amati sens il faut nga ñii baaxuñu te lii la ñuy def. loolu nag bon wane ko taxul nga ne nit ñi def leen lii déedéet da ngay wane li ñu warul def. wane li ñu war a def cinéma moo demee noonu. il faut nit ñi comprendre ko noonu bi cinéma Sénégal bu ñu waxee ne. ay kilifa dañ koy seetaan ay xale dañ koy seetaan. parce que da ngay gis euh, samedi wala yeneen jour yu muy daw. da ngay tooga sa papa sa yaay ay xale yëpp. ñu ci gis ay scènes yoo xam ne dafa xaw a mm. tegginewul xam nga li may bëgg a wax. est-ce que changé ko ci cinéma Sénégal wala dañ ko roy ba waaw waaw waaw bon en fait euh, xam nga euh, jamono mooy dox. xam am na ay jamono cinéma lu bari daaw ko ci gis mais boo seetlee ba seetlu Euh, réew réew réew yu kawe yi bon entre guillemets c'est-à-dire mooy réew tubaab yi les pays développés entre guillemets ñooñu euh, seeni film gis nga ni mu osé ak suñu bopp sax kenn mënu koo imaginer. c'est pas comparable. voilà c'est même pas comparable mais tamit xam nga Sénégal boo bëggee ngay wone ci di génnee li nekk Sénégal nga bëgg a wane lépp baax dafay fou te cinéma c'est la vérité cinéma c'est le miroir. Euh, donc de la société te Sénégal nag bon on se le dit entre nous xale yàqu nañ de. Uh-huh. waaw xëy na nag ñëpp yàquwul ñu alhamdulilah macha allah mais xale yaa ngi fi di def lu jéggi dayo ñun ñemewuñu sax wane lépp donc dañ ciy cof rek mais cof boobu nag moom mënul ñàkk mënul ñàkk parce que sinon buñ ko defee dafay mel ni ñun dañuy wane loo xam ne amul fii te xam nga idool li ko nit ñi nawee mooy dafay wane réalité sénégalaise mm-hmm. donc lu lu rafet mi ngi fi comme lu ñaaw. ay xale yu baax a ngi fi bon comme ay xale aussi yoo xam ne vraiment bu ñu señoon daal boo du ñu du ñu mel noonu. d'accord voilà donc on est obligé de de montrer les choses telles quelles. Ah ah. vraiment tey boo conseil booy jox ñi nga xam ne bëgg nañu dugg ci téléfilm. wala ñu ci ba pare nekk ay ndaw. lan lay doon. non li ma leen di conseil mooy ñu jàng métier bi d'abord ñu jàng métier bi te ñu xam ne métier boobu du ku nekk lay dundal ci Sénégal même bu dee da nga koy def na nga sukkandiku ci leneen itam. pour mën a yor sa bopp. Mm-hmm. waaw parce que kon déggee cinéma bi amul xaalis. non cinéma bi disons am na xaalis amul xaalis mi ngi am xaalis ci ñi nga xam ne ñoom maîtriser nañ seen art te dañ leen di soxla ci dimension yëpp. Mm-hmm. xam nga man tey jii damay tourner si téléfilm Sénégal yi mm-hmm. mais damay tourner aussi dans les téléfilms étrangers. Je viens de terminer mon tournage avec Black and White, qui est une, euh, un feuilleton d'air de euh, canal, n'est-ce pas, d'époque, n'est-ce pas, que j'ai eu à tourner avec, euh, avec disons, un peu plus d'une centaine de, d'acteurs français si o Sénégal. am na yeneen aussi yu ñuy waaj yoo xam ne c'est des produits internationaux yoo xam ne bitim réew ñu ñu soxla mhm. te ñooñu nag gis seen payoor ak bii dafa mel ni ayal ak yàlli du benn donc ñun Sénégal dañuy def parce que dañu bëgg réew mi mhm. il faut ñu liggéey leen liggéey liggéeyal leen ci li ñu am li ñu mën ci li ñu antan mais nag loolu nit du tëb rek tollu fa toll fa ñun yàlla daf ñu may ñu bokk ci les les précurseurs du théâtre populaire def euh, formation académique à l'école nationale des arts traversé peut-être un peu plus d'une quarantaine d'années d'expérience culturelle et artistique donc euh, macha allah yàlla na yàlla xeeb dolli donc am na fu ñu jaar te ba léegi des na saris ñun suñu ambition yemul foofu parce que ñun ñi ngi teg suñu bët ci les acteurs n'est-ce pas occidentaux yi nga xam ne ñoom dañuy jouer film ñu leen di fay à coup de pour un rôle principal même pas même pas pour un rôle principal. dans un film euh, un bon film américain dans un bon film français on parle de de de millions et de milliards en CFA donc ñun loolu la ñuy viser ñun pour ñun xool waaw waaw waaw ñu ngi ci yoon bi daal. d'accord sa xalaat mooy laaj bu njëkk bu bu mujjee bi sax. Mm. ci li nga xam ne mooy recrudescence des violences faites aux femmes. Mm. gis nañu ne jigéen ñi leen di bundu xataal lu ci mel ni viol ak dóor ak yooyu. Mm. lan moo ci sa xalaat. Ah loolu ñaaw la loolu du lu Euh, loolu luy luy luy luy luy yàq taaru àdduna la parce que jigéen dafa rafet jigéen dafa ñoŋ jigéen yàlla da ko da ko da ko da ko da ko jox kiiraay donc jigéen moom dañ ko war a sargal rek di ko defal lu baax lu rafet lu ñoŋ parce que moom moo ñu jur ñun ñëpp en fait donc euh, euh, je pense que képp ko koy def lu ñaaw rek da ngaa gëmul yàlla wala gëmoo sa bopp wala bëggoo lu baax te it bëggoo lu baax ci doomu aadama waaw mais jigéen moom dañ ko war a teral euh, di ko tatagal mais également di ko di ko di ko di ko yar ba mu mën a yar suñu njaboot. ma je pense que loolu moom moo ñuy war si jigéen keneen kuy def euh, safaat ma rek ndeysaan man dama lay dama lay yërëm sax. waaw mais tantôt ci série yi ak film yi nga xam ne moom nga hmm. joué durant tout ce parcours. Hmm. lan moo la ci gën a marqué. Euh, série yëpp. waaw man nag bari nañu yu ma marqué de. Ah, am na boo am na boo xam moo la gën a marqué ci yéen. <laughs> am na boo xam ne moom doo ko fàtte joué nga ko sa xol tooy wala mu am lu la fàttali. Euh, waaw bon mën naa ne bi ma gën a gën a gën a marqué. Mhm. génération yi seetaanuñ ko. benn film la bu ñuy wax Ndakaaru. Mhm. ma joué woon ci role bu ñuy wax Moustapha l'étudiant. Mhm. te ma doon tëdd ci couloiru université ñuy fuye sama poche ma souffrir def souffrance bu métti. def traversée du désert. mais yàlla daf ñuy dimbale aussi ñu dem ba génn ci film boobu ndeysaan euh, ma ci euh, rendre hommage ndem si yàlla yi ku mel ni Ibulaay ku mel ni Mimi euh, ku mel ni Ablaye Diop Yaama ñoo ñëpp joué woon ci nekk des ténors du théâtre sénégalais moo ma gën a marqué mais xam nga bu ma ko waxee nit ñi fii nii duñ ko xam. duñ duñ ko xam ah am na nag ñu ko xam. Mhm. ñi nga xam ne ñoom judd nañu n'est-ce pas donc enfin vivre nañu 40 ans et plus quoi. Ah. ñu xam nañ ko parce que c'était en 88. Euh, donc la njëkk a génn. à 88 peut-être daw na jusque au début année 90 après gisatuñ ko. bon mais lu weesu loolu li ma gën a gën a marqué du ma ne sax man li ma marqué mais li marqué doomu aadama yi. Mhm. Euh, c'est le personnage de monsieur Ndiaye de la collégienne. waaw parce que la collégienne euh, dafa ñëw nekk thème boo xam ne maanaam mbëggeel ci diggante professeur ak élève mhm. xam nga loolu ci jamono yëpp laay wax du sax jamono boobu. Mhm, dafa mos a nekk waaw waaw nekk loo xam ne lu lu sew la lu délicat lu doy waar. nit ñu bari gisee ne professeur ak élève waruñoo séq sëy euh, ñeneen ñu bari aussi gisee ne euh, effectivement seen diggante caaxaan walla lépp loo xam ne lu ñaaw la waru ci séq. Mhm. parce que dafa nekk diggante koo xam ne euh, kii da ko war a jox xam-xam. am ci moom ma de waa keneen ki itam da ko war a naw def ko kilifa mhm. am bët bu mu ko xoolee boo xam ne bu yëkkatiku la mhm. waaye nag nit nit la de gis nga professeur bu bëgg élève am dem ba sëy moom mhm. ci farata yàlla ak suunas Mohamed loolu lislaam terewu ko doomu aadama tam waru koo mën a ñaawlu donc euh, lépp mu ngi dem euh, doon maanaam ci contexte bi parce que man bi ma koy joue la collégienne noonu la demee suma suma élève bi topp na ma ay diir ma ne ko mënuñu ko séq mhm. ay diiri diiri diiri diir di ma topp ñëpp jàpp ci mhm. ay nit niti nit mhm. mais dañu dem ba jëmmi jamono xam nga li ñuy wax rek euh, xool dafay gisee euh, ñu dem ba yëfu nit dikkal ma mais nag ma buggoon ci dugg aussi dugg bu yiw dugg ci dugg farata ne ko kon li nga xam ne moo mën a nekk mooy ñu sëy mais yàlla dogal mujjul antu parce que xam nga rek ndogalu àddina dem ba xale bi dafay mujj génn adduna donc ci fin bi dama koy mujj tuddee suma doom euh, donc loolu mooy nekk dernier séquence bi sama doom bi ma demee ba takk suma benn cousine uh-huh. ma tuddee ko doom ji toog nag di ko ku mu nekk misaal mu doy war daal <laughs> donc film boobu loolu moo tax dafa marqué woon nit ñi uh-huh. la collégienne on peut pas ne pas vraiment euh, être marqué parce que roman de Morou Bofal, oui. Euh, qui est l'une des plus, plus, plus, belles plumes mhm. hein, donc d'Afrique, mhm. n'est-ce pas donc, et, et, dont les textes étaient à, la limite de la poésie. Mhm. voilà am na ci textes yoo xam ne boo boo koy boo koy wax di ko di jouer dafay mel ni comme poésie ngay réciter. donc vraiment c'est une, une œuvre grandiose n'est-ce pas qui a même été l'objet donc d'un support de cours pour les élèves de seconde pendant une génération génération bi nga xam ne ñoom ci jamono bu muy génn ñoom ñëpp dañu maîtriser woon livre dañ ko jàngoon <laughs> donc ça avait fait un succès éclatant et voilà un, un débat de société vraiment généralisé à la limite quoi à l'époque d'accord Toto ñu ngi lay jaajëfal balaa ngay tàggatoo xam ne ñu ngi jëm ci fin d'année bi. waaw ñu bàyyi la nga euh, bi nga xam ne ñu ngi lay waaw waaw waaw fin bi. Mm-hmm. mais mais balaa loolu damay damay remercier suma sama femme. Uh-huh. Euh, suma samay doom samay mbokk sumay xarit. suma collègue délégué de quartier parce que je suis délégué de quartier à Grand Dakar. mais également di di di remercier Cash Shopping ah. ah oui non dañ may defal lu baax de. Cash Shopping merci. Uh-huh. Euh, donc di wax Sénégal ne leen. Uh-huh. Euh, njàng. njàng mooy lépp ci àddina. gis nga nit boo jàngul rek. Euh, tanewaloo bàyyi ma. kon jàng leen ma leen di ñaanal yéen ñëpp jeunesse bi ngeen jàng gëm seen jàng am ful ak di seen jàng. te it di leen ñaanal ngeen réussir ko pour mën a jëriñ seen bopp jëriñ seen réew donc ouverture bi maa ngi ñaanal Sénégal yëpp ak àdduna ouverture yu jàmm vraiment def ko ci dal et puis xale yi aussi ngeen ànd ak yar ànd ak tegin topp nag li ñu di jàngal bu baax def ko ci anam yu gën a rafet wasalaam jërë ngeen jëf di remercier nag Sénégal <laughs> jërëjëf. <laughs>